dinaa la woo waxtaan a yow parce que moom it Viviane du moroomam ba muy jël ay kàddu yu ñaaw di ko bind léew liir nga lim xam nga euh, Ado. xam nga euh, Olof dafa naan lu yëngu rek li ko yëngal moo ko ëpp waaw. y a jamais fumée sans feu. dëgg la. vrai xam nga nen pour nga defar ko faaw nga toj ko soo ko tojul doo mun def omelette. Mm-hmm. dafa loo xam ne mën nañ koo waxtaanee am na loo xam ne mënuñu koo waxtaanee. waaw. li ñuy bind dëkk ko ci ñun ci ay message privé suba ngoon guddeeg bëccëg ba trois heures quatre heures du matin mhm. ëpp naa wane ëpp na wax mais loolu kan moo koy bind attends attends attends rek attends xam nga man réewuma te juruma ko réew mhm. ñàkkuma teggin te juruma ko ñàkk teggin ñàkkuma orma te bu ma jur ku ñàkk orma. Viviane danañ sëy ak Bouba. waaw. yàlla weddi. dëgg la. papa Philippe sama kër la juddoo. Mhm. Californie ak Oakland. mi mhm. ngi juddu jour anniversaire u sama doom Youssou le mhm. onze janvier. ba ñuy césarienne damay dugg ci détail pour nga comprendre ba ñuy césarienne Viviane ndeyam toogul baayam sama ndey toogul sama baay toogul buuba toogul man la ko buuba indil mu am sept mois. ma tey ko sama kër ba mu am doom mm-hmm. ma ngénte ko ki ma sëyal nii tey di famille laayeen ñooñu ñoo tudd papa Philippe kon lu ñaaw xaju fi mm-hmm. tey ji papa Philippe buy tàkk jabar kenn du taxaw ay bàjjanam ñooy taxaw dëgg na buñ koy tàkk kenn du taxaw ay bàjjanam ñooy taxaw dëgg la man xaw ma lu bon ko def du ko wax dëgg la yow am nga doomu a bindul soo ko gisee mu bind danga naan ah kii mas naa koo gis mu il faut que poser toi wax moo ñaaw loolu laa la wax quoi maanaam wax ju ñaaw ju wax moo ne moo ne mbaa benn affaire waaw dañ ko koo rafetal ñun li ñu xam ne buñ ko bindoon ci dëkk bi yow xamoo nooy def géej bu jege bu la jegee ci biir géej gi ngay dugg dem yo tam da maa gën a xam Viviane Viviane suñu famille la say ay ati at te kenn nettaliwu ma kenn bindu ma kenn woowu ma ne ma kaay mais tey mënoo ko wax mu arrêté def te eh, du arrêté dara aller retour la ils ont tapé fort on va taper très fort dégg nga mam <laughs> man kay la non déggoo olof de. waaw non déggoo olof de dama ne ils ont tapé fort on taper fort dañu yónnee message privé Bintu ne ko yow nga pare ci Adamo la lay yóbbul.